mbokk bi moom nee na dafa seetlu ni lii sàngara ak wure dafa mel ne lu tasaaroo ci xeet bi rawatina si si ndaw génn génn mu nekk nag di def ay dégâts yu yi ci joxe ak mise en garde si si euh, sàngara ak wure la bi ci jiitu mooy yonente bi xamaloon nañ ni àdduna balaa tukki sàngara day tasaaroo ak lu ko mel intisaar surbul xamr dana dem ba sàngara danañ ko utal tur bu dul turam yusammuunahu bi xayri ismi dana dem ba day xaw a dagan ci nit ñi ndax li muy bari ndax li ko nit ñi def rawatina carte xam ngeen ni carte alal bi ci gaa yi di gis nit ñi yàlla tere na faaleetuñ yonent bi tere na faareetuñ ko te loolu moo nekkoon mission imam yeeg borom xam-xam yeeg sëriñ si bu ñu doon wax yi xaram tout le temps ci xutba yi ci xew-xew yi ci yu demee noonu nit ñi dinañ ko bëgg a gën a bàyyi xel dana dem nag nii mu tasaaroo lu ko raw dana ñëw njaaloo tasaaroo na waaye dana ko gën a tasaaroo dana dem ba njaaloo nit dootu ci am kersa góor gi koy def dootu rus jigéen gi dootu rus dana dema dem ba ker yi keppaar yi bërëb yi yépp njaalookaay lay doon waaye dana dem ba wor day tasaaroo gor dootoo ko gis nit ñi nan lañuy ñuy dund seen life seen bëgg-bëgg ñu tollee foofu nag yow mi nekk ndaw am na lu nekk sa kanam défi yi nga war a relever bul ni man salafi laa am naa iman rek nga toog seetaan déedéet salafi tekkiwul rek na sama sikkim law tekkiwul na sama tubéy gàtt tekkiwul naa socc lu bari tekkiwul rekk ne naay jullee jàkka yooyu ca màndarga la ca la bokk waaye dafa des ay jëfu biir ak ay jëfu biti jëfu biir yi yow mi bëgg a dund salafiya dafa bokk ci jëfi biir ndax pare nga nekk jullikatu guddi ndax pare nga nekk jullikatu guddi sa diggante ak sa boroom ndax pare ngaa am wirdul quraan yi kulla yawmi awil layla guddi gu nekk wala bëccëg bu nekk ndax pare nga ngir jàng alquran ci dara waaye njàngum tadabbur jéem ngir jéem koo appliqué ndax yaa ngi koy def te xam nga ni yaa gën a xam sa bopp balil insaanu ala nafsihi basira waaw mbaa yëg nga ni salafiya bokk na ci la ci gën a rëy mooy du lekk lu xaram su xiifoon bay daggatoo du dugal ci biiram lu xaram du xool lu xaram ci tayeef waaw doo xool lu xaram yore sa tiktok di seetaan moom nooy def ak moom mbaa yëg nga ni mbokk ak salafiya boo koy dund mooy minhaaju nabi mooy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay topp kuy topp yoonu yonent bi amatoo choix li yonent bi bàyyi woon da koy jéem a ba li mu digaloon da koy jéem a def foo tollu fare ca góorgóorlu nag sa jëfi biti yi mooy yi xaraam te feeñ mbaa yaa ngi góor góorgóorlu fakkee ni ko bàyyi xam nga ni jëw jëw ab salafiya da ko war a moytu dangay ngay dund salafiya waaye boo defoon ndànk yow yaay jëw te li gën a doy waar ba ci biir jàkka yi dañ ciy toog di jëw te li gën a bon ci jëw mooy dañuy jàpp ne du jëw gis nga li nga jàpp ni du jëw da nga ko sous-estimer li nga sous-estimer pour yow du dara mbaa xam nga ni kii bàyyi jëw du toog ci kanamu kuy jëw wa kunna naxuudu ma al xaaidin soo toogee nit ñi di jëw mënoo leen koo tere jógal nga génn waaye doo ko def da ngay toog amaana sax nga sànni sa sa grain de ndax pare nga ci yu mel nii yëpp yëpp dajaloo dafa bari waaye jeunesse bi maa ngi leen di digal nañu moytu bu baax a baax a baax sàngara mii tasaaroo bi mu tasaaroo carte gee gën a grave carte bee gën a grave ndax ndaw ñu bëri gisuñu lu dul am ku gisut lu dul am nag soo deful ndànk rek dugal la day yomb insha allah ci gàtt alhamdulilah mbokk bi xarit bi la fi andi euh, nee dafa bëggoon euh, jox ko sens bi daal suñu mu gën a gàttee maa min mawluudin yuuladu ala illa yuuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku juddu ci yéen bi muy juddu yàlla la judduwaale mooy fitra xam ngeen ni ñun ñëpp ba yàlla ne alastu bi rabbikum ñun ñëpp bokkoon nañ ci xaalu bala kon nangu woon nañ ñi yàllaay suñu borom léegi nag yàlla nekk suñu borom ñu juddoo loolu bi nga juddoo en tant que lire amoo responsabilité sa responsabilité mi ngi encombré entre sa yaay ak sa papa sa yaay ak sa papa nag ñoom ñoo lay jox sens bu baax nga baax wala ñu jox la sens bu bon nga bon soo fi fekkee yaay ju ragal yàlla di muur cëram di tudd yàlla fekk fi baay ju mel noonu kon doomi jullit dëgg ngay nekk ab pratiquant ngay nekk waaye boo fekkee yaay juy fecc baay juy fecc papa buy caaxaan ya nooy def noonu dëgg ngay def gis nga doom ja jaar na yoonu baayam du xas yoonu baay lañu war a xool mooy moo tax mu ne fa abawaahu yu hawwidaani xale bi ay papam ñoo koy def yahud aw yu nasiraani walla ñu def ko nasaara ndax lañu doon lañuy bëgg mu nekk aw yu majjisaani wala ñu def ko juif wala ñu def ko sax ku gëmul dara parce que loolu mi ngi delluwaat ci papa ji am doom sens responsabilité bi doom am papa ji am doom bi muy takk yaay ji nan la ko takkee nan la suye ak yaaji nan la amé doom ak mom motax lamu la doon lay doon dama am benn kii bu ma gis benn xale bu ndaw amul 12 ans maa gis mu yore tama di tëgg kar kar kar kar kar yaaji ci podium bi taxaw ñu doomu diw la ma alhamdulilah wàcc na de wàcc na dëgg dëgg ku sa yaay di ngooleeku ci ci ci ci podium yi di fecc boo tëggee tame ci 12 ans dëgg dëgg wàcc nga loolu lay teg incha allah. xam naa ñu mujjee ci question am yeneen yu des euh, mbokk bi moom nee lan mooy tànnaloo yàlla istixaara daal la woon nga nga mooy tànnaloo yàlla ci li nga bëgg mu dagan nga bëgg koo def li nga bëgg a jënd. te bul fàtte ni li nga bëgg a jënd balaa ngay tànnloo yàlla ci jënd bi ndax alal bi jaar na yoon ba mu war a jaar ba pare xam nga boo yoree alal bu lewul bëgg ne yàlla tànnal ma ci oto bi may jënd ma da ngay caaxaan rek tànnloo parce que la nga ko war a jëndee d'abord daa war a lew ba pare mais munoo jël xaalisu carte ba pare ne yàlla oto bi damaa bëgg nga tànnal ma oto boobu nan lay baaxee parce que xaalis bi baaxul parce que fondation bu baaxul baax da ngay tànnloo yàlla mooy yàlla li ma bëgg a dugg mooy dama lay tànnloo ci sa xam-xam ci sa kàttan ci sa mën-mën yaa xam xaw ma yaa sañ-sañu ma yaa mën mënu yàlla lii ma bëgg a dugg wala lii ma bëgg a def bu gënee ci man defal ma ko su gënul ci man utal ma lu ko gën mooy yow yaa tànnaloo yàlla ci jabar wala ci kër wala ci doom loolu nag doo gént gis dara du dara luñ lay wan comme ni ko gars yi di waxee ci sixaar fanaanoo gi demee yooyu ay caaxaan la nawun min a njabar ku lan dalee fanaanoo rek njabar lay def kon su boobaa bu loolu amee boo xësee ba jublu ci dara sa xel faay sax ci kon su boobaa continuer defal loolu mooy iftixaar ah noonu de la ñu ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee noonu lañ ko war def incha allah loolu moom mooy iftixaar mooy tànn loo yàlla ci li bëgg a jaar ngir yàlla seetal la ci la ci gën incha allah rabbi amul nag nga laaj yàlla ndax yàlla lii gën na yàlla naan la lii gënul bàyyi ko defal lee déedéet mu ngi dellu ci sa esprit sa ngëm-ngëm ci loola boo amee xel ñaar bàyyil bu sa xel saxee ci continuer defal incha allah loolu moom mooy istixaar incha allah rabbi